asalaamaaleykum sama famille Facebook waaw ah, maa ngi leen di yéen ñëpp ku ci nekk seen tur seen sant man la Mouhamed Diakhaté seen président ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dama doon dawal gaare fii fii nii euh, Virginia justement doon xalaat rek ma yaakaar ni am na ki nga xamante ni euh, war na ko mën a dégg ndax vraiment ñi ngi dund jamono boo xam te ni jamono bu metti la te ñëpp xam nañu euh, Sénégal métti na méttiwaay boo xam te ni raw mën a dayoo Euh, waxuma la waxtuma la aussi Amérique bi nga xamante ni foofu fii laa nekk ak euh, fépp ci àdduna yaakaar naa crise mondiale la fépp la am na ñi ñaa ngi koy yëg métti te euh, di ñaan yàlla rek yàlla may la jàmm joo xamante ni bi ngay sentir sa biir xol ak sa biir ru boo xamante ni doomu aadama mun la ko jox nga xamante aussi yàlla fàttewu la mu ngi lay seere la ci ay loxom xam nga taf la ci boppam ba nga xamante ni nga mën a surmonter difficulté yi nga xamante ni moom ngay dund actuellement nii affaire soxor ak iñaan ak liggéeyante yi xew yëpp ak euh, di doyal di doomu aadama ndax xaalis xam nga xaalis nga xam ne yàq na àdduna mais au moins nga am benn pain intérêt boo xamante ni di nga mën a euh, surmonter loolu lépp waaw sama xel mu ngi ci yéen ñi nga xamante ni euh, ñi am dañoo feebar ak ñi nga xamante ni aussi ñu ngi nekk ci ay difficultés yoo xamante ni yu métti yaakaar naa ni message bi xëy na dina la mën a réconforter tuuti incha allah ba yàlla teg la. ci li nga xamanteni ni moom euh, moom nga bëgg inshallah allah parce que yalla euh, nek na ku bax nek na ko xamanteni ni doomu aadama mo mo mo doy di rek mais yalla mom euh, ñepp la yene lu bax mais ñun doomu aadama ñoko mënta sédélé ak yaatal ak yoyu donc di ñaanal ñepp ño xamanteni ni ngi dund ci difficulté yoyu ñu xamné partout la mais inshallah dina dina jall dina jall j'espère que li ni dina mëna defal sa journée en tout cas man personnellement ma ngi di yoni sama mbëggeel yépp ci yéen allah te di ñaan yàlla ngeen am euh, une excellente journée allah ok